ñu tànnoon kenn ci sëti alaaji sëriñ Bousso yi muy sëriñ Mouhamad Bousso muy doomi sëriñ Galas Bousso muy doomi alaaji sëriñ Bousso sëriñ Mouhamad Bousso lañ tànnoon pour mu wax ci ak mbokk xañ na waxtu wi xaw naa xat waaye li muy xat-xat mu jëm cee ki rek lu gàtt loo xamante ni lu aju ci ak mbokk lay doon loo xamante ni dinañ ko mën a jariñoo ngir soññiwaat ñu ci mbokk gi bu loolu jàllee it jox sëñ sëriñ Moustapha Bousso moom soxna waalo mu alaaji sëriñ Bousso moom itam moo jël kàddu sët yi wax seen tur loolu jàllee it dinañ jox suñ suñ suñu bàyyee sëñ naa buso mu wax ci alaaji sëriñ buso ak euh, xañ na kàddu yoo xam te ne dina ko jàll yu bëree bari bu noppee it fekk kàddu am na buy tëj xañ na suñ suñ sëñ Lamine Bousso moo koy yor ku mu jox ko ko bu paree mu ñaan comme niñ ko xamee ñun ñëpp ak mbokk daa doon lu am solo loo xam ne lislaam bi mu ñëwee xam nañ ne nekkul diine joo xam ne diine jàkkal rek diine joo xam daa ñëw rek ngir di soññ nit ñi ci ñuy jullee ko sëlmal wala ñuy werdoo ko yam ci lu baax rek waaye daa ñëw ngir defar ab société mooy maanaam dundinu nit ñi rek moo ko tax a jóg ngir defar ko ba fu mu mën di doon rek nit ñi dafa dund lislaam boo jullee ba pare boo génnee dem ci marché ba lislaam di feeñ ci sa say jëf ak say waxin ki noonu tamit boo nekkee di jëflante ak nit ñi lislaam di ci feeñ kon lislaam loolu moo ko taxoon a jóg moo tax ba mu ñëwee dafa tëral li ñu tuddee alkulliyaatul xamsa mooy juróomi mbir yoo xam ni lislaam da koo farataal ci nit ku ne ngir ñu sàmmal ko ko loolu nag bokk na ca li ñu fas yéene waxtaane tey nii muy ak mbokk alal bokk na ca bakkanu nit bokk na ci yu bari la juróom la mbokk nag da cee bokk mooy yi nga xam ni kenn ku ne dañ kaa war a sàmmal te it mooy tax ma bi yàlla teg ci àdduna bi ngir nit ñi mën a continuer di fi des di fi dund loolu mën a am ba ilaa xiyaami saa ndax ak mbokk bu amatoon nit ñi di dencante di siq ak mbokk ak yooyu noonu kon xëy na uh, al aadamiya wala ak doomu aadama xëy na dootul dootul mën a continuer loolu moo tax suñu borom waral loolu gis nañ nit atte yi diine yi atte yu ci bëree baree baree bëri ci li ko lislaam di tënk mooy da ciy boole ak mbokk wala nga gis atte yoo xam ne sax da tax lislaam tëral ko ak mbokk moo tax bokk na ci atte yi ci gën a siiw ku ne xam na ni li ñu tuddee njaaloo wala ye def yenn ñaawteef yi da tax suñu borom araamal ngir sàmm ak mbokk moo tax moo tax koo xam ni sax ci lu mel noonu lu juddoo duñ jàpp ni bàyyi waaye juróom moo ko jur kon lislaam bàyyi ne xel ak mbokk ci sax ay atteem mooy suñu borom ni muy yoonale bu xoolee tamit ñaari masdar mooy ñaari yi nga xam ne ñun ci la ñuy jële diine muy alxuraan ak sunna bu ci nekk bu ñu ci demee danañ ci fekk lu bari loo xam ni suñu borom dina ci wax wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina ci ñëw di leeral lu aju ci mbokk dina ci waxee tamit ci ñaari anam yëpp mooy dana ci xëppe dana ci xëppe tamit maanaam mooy dana ci diggee ay mbir ngir ku ko sàmm waaye dana ci tëkkoo it ngir képp koo xam ni sàggane nga mbokk wala nga wala nga dog ko gis nañ ci alquran yaa ayyuha nnaasu ttaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaan wattaqu llaha allazi bi bihi wal arxam foofu gis nañ mu tudd al arxam mooy ak mbokk dendale ko turu yàlla dendale ko jëmmi suñu borom kon loolu lépp fonk ko fonk ko ak dayoo bu mu am ci alxam moo tax ko noonu tamit bu ñu demee ci yeneen aaya am na yoo xam ni suñu borom day tëkk ñi nga xam ne ñu ngi ni ñooñu mooy ñi nga xam ne suñu borom rëbb na leen rëbbum yàlla ku ne xam na ni lépp lu mu dugg rek ci bàkkaar yi ñu tuddee alkabaayir ci lay bokk lépp loo xam ne suñu borom tudd na ko ba pare toftal ci ni ni ko ko def suñu borom rëbb na ko rek loolu ci kabaayir yi la bokk mooy bàkkaar yu mag yi nga xam ne nit ki bu ko tuubut duñ ko ko jéggal mooy da koy tuub ñu door ko ko ñu door ko ko jéggal ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi tagg na lool daana digle lool saxaaba yi ñu jokk ak mbokk moom it digle na ci lu bari ku ne xam na ni yonent bi sallallahu alayhi bi mu gàddaayee Màkka dem Medina lam njëkk a def mooy politique bi mu njëkk a def ngir daawa bi mën a jàll mën a am doole mooy daa fexe ba mbokkale ñaari ñaari ñaari pàcc yi am ci julli ñi léegi mooy muhaajiroon yi mu àndal jóge Màkka ak ansaar yi nga xam ne ñoom la fekk Medina bi mu ñëwee daf leen a mbokkale mooy boole na leen ku ne ci saxaaba yi daa tànn kenn ku dëkk Màkka boole ko ak kenn ku dëkk Medina nga xam ñoom ñaar la naan leen yéen mbokk ngeen ñoom it ko doxalin ba tey ji loolu moo dëgëral eh, l'islam bañ mën gañe sax xare boobu ñu tuddee xare Badr wala ñu amaat doole bay dem def ay fatxu Makka ak def yeneen ak yeneen futuxaat islam yi fi mu àgg fépp kon al al al ardu al ardatu al asasa mooy fondement suuf su dëgër si nga xam ne si yonent bi taxawaloon état islamique boobu mooy mooy mbokk bi mbokkale saxaaba yi gis ngeen xesa boobu si boobu ñu nettali am na ci ñaari saxaaba ñaari ñoo xam ne ñu yonent bi mbokkale woon koo xam ni borom ji dani ko sama alal dama koy xaaj ci digg bi nga jël benn xaaj bi ma jël benn bi samay soxna yi dangay xool ñaari ñu la ci gënal ma bàyyi leen nga nga féetewoo leen nga jël leen keneen ki tamit ni ko ma nit gën a comme yonent bi dañoo boole ñu nit jox ma semiñ ak rek da nga tegtal ma fu marché ba nekk ma su ma xëyee may dem di daaneel sama bopp doo defal sama kon lu lu lu lool ci diine ji yonent bi daana digal ni di leen di leen siiwal am nuyoo tey jokk ak mbokk kon day bu la nga defee da ngeen dugg aljanna di ngeen dugg aljanna wax na suñu borom bi mu bindee ak mbokk ak mbokk dafa taxaw ci ron aras dafa daal di jooy suñu borom laaj ko lan lan moo tax nga jooy mu ne ko damaa ragal ko ma dog suñu borom ne ko ndax doo gërëm loo képp ko la jokk ma jokk ko képp ko la dog ma dog ko ak mbokk daal di daal di sant ci loolu daal di gërëm loo loolu kon ak mbokk képp ko ko jokk suñu borom dana la jokk képp ko ko dog yeeg suñ suñu borom dana la dana la dana la dog te yonent bi daana wax ni bokk na ci yi waral gudd fan yi waral nit gudd fan mooy mi sàmm ak mbokkam ak di ko ak di ko jokk ak di ko jokk kon wax nañ ci ay aayaat yu bëree bëri ak ay ahadis yu bëree bëri yoo xam ni rot na ci bunt boobu képp lay lay dugg gis nañu ni yonente yonente yi fi jiitu yëpp ngir solos ak mbokk dafa bokk ci li nga xam ne day dëgëral nit ki wala da koy da koy may doole nit ki képp koo xam ne amoo ay mbokk da yomba noggut wala da ngay yomba jaay doole moo tax yonente yëpp da ngay gis ni ci alxuraan suñu borom da leen boole ci ay famille yu am solo ñu am ay mbokk yi dëgër a dëgër yonte yàlla son bu gis nga ba mu jaaxalee nitam ñu lañ ko wax wala wala raxtuka la rajam naaka sa sa mbokk yii di ñoo ñu jaaxal waaye kon dañ la danañ la rey danañ la duma gis nañ ko niki noonu yonent bi sallallahu bi mu door a tàmbali daawa bi mbokkam yooyu ko waroon képp moo jaaxal nit ñi mooy bàyyam taxam boobu Abu Taalib ak waa Xuraysh seen mbokk yi ni ñu ko bëggee woon ak ni ñu ko fonke woon ak maamu Abdul Muttalib ñooñu ñoom lañ xamutoon nu ñu leen di def waaye kon dañ koy dañ koy rey gis nga Abdul Muttalib taxawaay yi mu amoon ci moom ba looloo waral sax atum bi ab Abdul Muttalib gaañoo at moomu ak Abu Taalib ak Khadija at moomu moom la tuddee amul xusn ndax li ko waral mooy yonent bi daanaka mën nga ne sax amatul wéeruwaay ci ci kaw suuf ci ñu ko doon ruse nga xam ne mujj na ñépp tàmbali di ko yàpp ba waa Makka ku amatoon ci moom kàddu sax commencé na di am ci am ci moom kàddu kon ak mbokk lu am am solo la suñ sëriñ bu baax bi it muy Seex Xadim radiallahu anhu moom it dénkaane woon dénkaane woon na ci lu bëree bëri daa dégg wax ju siiw jooju ñi nett li daane nit ku nekk sëñ be koo xoon mën ngaa ëpp say mbokk waaye mënu leen a ëpple niki noonu mën nga leen a gën waaye tamit mënu leen a génn daana wax it ni nit mën ngaa raw say mbokk waaye boo ànd ak ñoom boo ànd ak say say mbokk saw doxin du rafet loolu ci ci dénkaane sëñ bi la bokkoon kon fonkoon na ko lool te ni ma ko waxee léegi képp koo xam ni àndoog say mbokk wala sàmmoo leen wala bokk na ngay doxeek ñoom demewul noonu loolu dafa lay néewal doole arab yi daa wax bu yàgg ni aqaaka aqaaka inna man laa aqan lahu ka saain ilal hayja bi xayri silaahi mooy na nga fonk say mbokk ndax ki nga xam ni day nekk ci àdduna bi te sàmmul ay mbokkam wala amul ay mbokk mi mel ni ku jëm ab xare rek te yorut ngànnaay yorut dara lu lu mën a lu mën a dëgër lool kon li tax nit ñi respecté la ci dund gi bu diine ji du dara bi mooy nga am ay mbokk yu dëgër a dëgër yoo xam ne ñoom lañ ñoom lañ lay ñoom lañ lay rusé yonente bi sallallahu alayhi wa am na benn saxaaba mës a ñëw ci moom ne ko man de sama mbokk yi chaque jour damay dama leen di jokk def ci ñoom lu baax waaye lu bon rek lañ may faye yonente bi ne ko loolu ba mu tee mukk nga di leen jokk mooy loolu nga wax fekkee noonu la demee yaa ngi mel ni kuy jël ab ban bu ab ab dómbu tàng di leen ko di leen ko jox mooy kon yow defal li nga war a def rek ak donte keneen ki defal li mu war a def waaye defal li nga war a def kon jokk lu ma waxoon ci xadis ba laysal laysal waasilu bil mukaafi walakin al waasilu man isa qatiat rahimahu wasalaha mooy nit ki bul xool ni kii mi may jokk dama koy jokk nee na yent bi nee na loolu tudd tudd tudd jokk mbokk jokk mbokk li muy tudd mooy ki nga xam ne sax daf laa dog sax yow yaay jël sa mubaadara bokk dem di ko jokk ak di jéem am am ci moom buñ xoolee it ci sëriñ bi ci ak mujjam ci njaareem yàgg nañ ko nettali wax nañ ne bi mu demee ba jot gi mayatu ko xëy na muy taqoog nit ñi ci yenn yenn tarbiya yi daana def képp ku mujj jébbalu ci moom day laaj kan la gën a jege ci mbokk yi kan la gën a jege ci fere yi moom lay laaj buñ ko ko waxee kam kam gën a jege ci ak mbokk sëñ bi boolekaak boolekaak kooku kon ak mbokk lu lu mat a bàyyi xel la gis nga sàggane guñ ko sàggane ak ak ñàkk doxal guñ ko ñàkk doxal ci jawhar ci euh, naxju xadaayil xaaj tudd na ci lu bëree bëri ni inna euh, wal aqu xaqan wal xalilu sidqa andaru bi kulli xalilin xaqan mooy jamono ji sàggane guñ sàggane ak mbokk tax na sëñ bi ne lépp luy jafe wala luy raar rek mbokk dëgg ak xarit dëgg moom moo ko moom moo ko gën a jafe mu ne wax obalesi ka xawli man jalal xalaaj inna aqaakal xaqa man yasaa mooy sa mbokk dëgg mooy ki nga xam ni lépp loo ne rek da cay nekk lépp loo ne rek da cay nekk wa man isa raybu zamani sadda ak shattata fiika shamlahu li yajmaa mooy ki nga xam ni it heure bu la doxiinu jamono jàppee ba nga am ay jafe-jafe wala nga nekk ci ay tartar sa mbokk moom ngay gis muy taxaw di la jàppale di la jàppale ci lépp kon anam gees ko mën a jokkee ci ak mbokk lu bari la mooy li ci jiitu rek comme baat bi ni mu tëggoo muy mbokk rek mbokk la tëggoo waaye nag ak mbokkoo mbokkoo mbokkoo mooy ngeen bëggante moo jiitu ak mbokkoo ni muy amee mooy bëggante ku nekk li nga yéene sa moom sa nga yéene ko sa bopp te xam ne loolu ci ponki ngëm yàlla la bokk suñ diine juñu nekk lislaam ponki ngëm yonent bi dafa laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li aqihi ma yuhibbu li nafsihi mooy nit ak ngëmam du mat mukk mukk lu dul ne li mu bëggal boppam daf ko bëggal bëggal bëggal moroomam kon li jiitu ci ak mbokk rek mooy ku rek li nga sa bopp ci lu baax nga yéene ko nga yéene ko sa mbokk ba ca toppaat tamit ci anam gi ñu koy jokkee mooy teggi ni suñu jàngale ci nax ju rek mooy ku ne ni nga bëggee ñu jëflante ko ak yow ku ne ni nga bëggee ñu fonke la noonu ku ne bëgg ni nga bëgg ñu def la noonu rek nga def ko su mbokk loolu bu ñu ko defee rek benn jafe-jafe benn jafe-jafe du am mooy wajaalu mislika googu moom kanaf kanaf si sawa tariqatul adabi rahmatu sagir kal ummi wal abi wa tawxirul kabir wa jaalu mislika ka nafsika sawa mooy ku ne ci mbokk gi bu xoolee ki ko mag mu def ko way wayjur def ko ni ay waajuram ki ko féete ndaw def ko ni rakkam wala doomam ki nga xam ne moom la maaseel jamono mu def ko ni boppam kon loolu bu ko defee rek ni ki noonu benn benn benn jafe-jafe du am kon daal xam naa wax ji du mën a gudd lool lool lool ab soññee la woon rek ak doonte fi ñu koy waxee xëy na ñu ñu ñu gën a yaatu àll bi ñoo fi nekk ah day lu mënta ñàkk te ndigal rek te jokkoo wuñ ko noonu sax ñi ngi soññ ñëpp daal ci ñu gën a sàmm mbokk gi te xam ne kër gu ne waa kër ga njaboot gu ne kenn du jóge fële di ñëw di leen defaral seen seenu mbokk wala di leen jokkal seenu mbokk ku ne ci njaboot gi rek yow yaa war a jàpp ne li defar mbokk gi wala li koy jokk ak jagal ci yow la ci yow la war a bàyyi ko pas bu nekk rek euh, ku ne rek bu amee ci ñun pas-pas boobu rek incha allah suñu borom dinañu fay yiw te it ci bëgg lépp danañ ko danañ ko am kon ñuy fàttaliku suñu maam ji ñi nga xam ne moom la ñaanal ci bis bi ci ay ñaan bu baax a baax di ñaan suñu borom fayal ñu ko te it sàmm njaboot gi bu baax a baax ba bis bi at mu ne rek gën a gën a tawféex ak gën a jëm kanam ba ak Cheikh Khadim ñu ànd ak sunu baay Sëriñ Moussa bàyyi woon ci kenn nag ñëpp ñëpp mboolam njaboot gi ak bokk yi maa ngi nuyu ñëpp te di leen siyaare te di leen yëgal ne yi Sëriñ man de xóot na ci sama xol xóot na ci sama ànd ak moom xóot na ci sama xam-xam ci sama digganteek moom boo xam ne bii mënuma jàkkaarloo ak mbooloo di ko wax waaye nag ma jàpp ci tuuti tuuti joo ci ma ci jàpp nag mooy alal yi sëriñ léppi sëriñ Fallu mu ngi woon ci alal yi sëriñ Buso bokki yi ci bokki seex Mohamedou Fadel yi mu bokk Seexul Xadim ñépp ñu ngi ci biir alaaji Sëñ Busu alaaji Sëñ Busu taali bi bu matoon ak taali bi ku sëriñ fallu woonu woon ku déggoo woon ak sëriñ fallu ku jàppoon bokki sëriñ Tuubaa yeeg Cheikh Ahmadou Fadali la bokki boppam nag boo te duggee dangay yaakaar ne sax bokki boppam la gënoon a bokk te ànd naa ak moom ci diir wu néew ndax yàlla dogal na ma bokk ci ñi ko njëkk sëñ bi booleeg moom ba muy sos léegi mboolem mbokki mbusoo bi bari na fi mag ñoo xam ne tey tuuti rek laa ciy tudd niki ku mel ni sëriñ baaxa bus ku mel ni sëriñ maam Baara Ñang ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñii dafa lim bi da ko dut jaar waaye ñoom ñëpp kenn ku ci nekk doxale woon na sama diggante ak moom ba xam naa ci ñoom yëg ci ñoom loo xam ne lay yëguma ci waajur wu ma jur keroog ba ma Cheikh Amadou Fade booleeg moom itam kaddu gu ma sëñ Fallu waxoon dama ko def ni téere nga ca bàyyi sëriñ teg dama ko def ni téere fu ma toll ba fii ñu toll maa ngi koy wax bépp toll bi boo xam ne bii nag àndoon naa alaaji sëriñ tey ab liste laa ko def ma sama kër dafa ko jut fii ne manoon naa ko indi kenn ku ne ma wax ko ak sëriñ bu mu mën a diggaalante woon wala soxna wala njaboot ba ci naata ngi jiwoon ci biir kër gi nga xam ne bare na fi ñu fi génn ki métier yoo xam ne yii ci laa biir ak alaaji sëriñ bu soxlañ génne waaye li ma ciy gën di seere mooy sëriñ Fallou moom bëggutoon lenn lenn lenn lu dul Seex Mamadu Faadal ak njaboot gi ak dongo yi ko sëriñ Fallou boole woon toog naa fii ci kër gi ak mañ ko sancee booba fii ci barabu sëñ ma sëñ sëñ bii dëkk làmbaay sëñ Aliou Diouf làmbaay bi fi leen xat bi ñu doon fete ne sàkket yi ñu doon defee ci kër gi ba ñuy koy sanc si toog nañ fi ab diir mu woon nun ñëpp ñu daje mu ne ma siidi ma ne ko mbàkke mu ne ma li ma leen di xamal day ma ne ko xan mu ne ma óoma lenn lu dul yéen ñi nga xam ne sëñ Fallou dama boole yéen te ma bokk yéen lu ma mën a am ci kër gi nag yéen a ma ko gënal ba mu def sama bàjjan aram mbaay bu su mii bàjjen aram mbaay mii nag na ngeen ma ko sàmmal di ma ko xoola yéen ñi fi nekkit ñi ci des taalibi yii nga xam ne ñoom la ma sëriñ bi booleel ci ñoom laa leen di xooloo ci ñoom laa leen di royloo ku ci dajeeg ñoom wala nga am looy xebat ci ñoom boyee boo nga abal ma kër gi bala maa ñëw waaye su ma ñëwee su ma ko yëgee da nga ma abal kër gi ba maa doo yi te loolee it sii ma ne ko mbàkki mu ne ma teg naa ko ci sa loxo képp ku fi wax lu mu wax wax ci kër gi wala mu def ko fi mbaa def ko sans bàjjen bi wala mu def ko ci yéen dong yi bu ma ñëwee bu ma ci nëbbu dara ne tool ni tarfetal ay ni sant nag mënut weesu loolu ak baax mënut weesu loolu ak jàppit mënut weesu loolu Cheikh Modou Fall teg na ko foo xam ne tegu fa woon kenn Cheikh Modou Lamine Bara yal na ko yàlla doon dolli ay leer ñëw na fii keroog bi suñ boroom dafay ab dogal si moom toog ci lalem bii ñu toog mu ne jëmm jii de xam na ci ma Modou Fall loo xam ne ñun ñii njabootu Cheikh Modou Fall xamuñu ko kon nag képp ku dib jullit mbaalis gor war ngaa taxaw ci bisam bii waaye man mii ne wax jooje mën naa ko wax ci Baye Sëriñ xam naa ci Baye Sëriñ loo xam ne ak njabootam xamuñu ko ay bokkam xamuñu ko te it def na ma secret yoo xam ne yii du ma ko nettali mukk man moom sëñ Fallou rek alhamdulilahi rabbil alamin jëmm a ngi nii daal joo xam ne jii ko taxaw ci bisam bi yàlla na la yàlla ak yónnte sëñ Touba Mbacke rammu ci rammu mam ko rammu te it sëñ bi mën na ko tey moom am na yaatuwaay ak rammu waale ñëpp ndax daana ko jëf lii du fii ci kër gi toog naa fi mu ne ma siiri ma ne ko Mbacke mu ne jëmm joo xam ne sol na daalam ñëw ci kër gii di ngir yitte woo loo xam ne jëme na ko ci këram wala mu jëme ko ci soxlaa su fekkee ne li ma la jox nga teg ko ci magasin bi am na ci kër gi jaru bu yegg si man na ko dindi jox ko ndax sëñ Fallou dongo ma ko jox tey yéen ak dongo yee dongo yee nit ñee tax mu jox ma ko kon nag jarul nga di ñu kenn dee leen ko jox ba tax na ay bokkam mii naa ci bari ay xaritam mii naa ci bari ay àndandoom mii naa ci bari waaye xajut fii di leen li mu wala di leen dara sant daal laay def mante di ko ñaanal te it yàlla na ma yàlla ak yonent bi sëñ Touba gisaleeg moom yomal xayaam réccuwuma sama ànd ak moom te du mu réccuwuma sama gis ak moom yomal xayaam yàlla na ci yàlla saxal njaboot gépp bi di jiital ci siyaar bi soxna maam awa Mbakke bintu sëriñ Fallu ak mbooleem njabootu sëriñ Fallu yëpp eh, di siyaare sëñ Mouhamadul Amin Bousso xalifa Baye sëriñ Bousso Safour ak mbooleem njabootu Baye sëriñ yëpp di wax alhamdulilahi rabbil alamin ci jataay bi di wax ne ñu ngi yëkkati suñ kàddu muy kàddug mbooleem sëti alxan gi sëriñ bi sa safoor yëpp ki njiital sëriñ Amet Jaw ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ki liggéey bi di wax ni ñu ngi wax ci kàddug sëriñ Amet Jaw mi nga xam ni mooy président bi nga xam ne mooy jiite sëti alxan gi sëriñ bi sa safoor yëpp te am ci taxawaay bu ràññiku taxawaay bu rafet bu am solo ak ñi nga xam ni ñoo ànd ak moom lépp ci liggéey bi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi di sant sëriñ Touba di sant alhaaji sëriñ bi sa safoor booleem sët yi ñun ñëpp suñu xol sedd na guy suñu xelit dal na ndax ku nekk xam na ni ci jamono bii ñu toll ak ci waxtu yi ñu toll ak ci barab bii ñu nekk amul lu gën a kawe jataay yi bu mel nii nga xam ni moom lañuy ñu jataayoo tey mooy jataay bi lan jataay fàttaliku nit ku baax jataay ñaanal nitu yàlla jataay sàmm kóllëre ak doxu mbokk kon jataay tey bii jataay la boo xam ni mën nañ cee rafet njort bu baax mboolem sëriñ daal ñu ngi sant ñëpp bàyyiwuñ kenn nañu xam ni bis bii nga xam ni moom moo moo moo ñu fi dajale tey daana am ci amin yu rafet daana daje ci daje yu bare bare bari di wàcce ay kaamil di saafante ba suñ jumu yàlla yi tey mu mel ni buñ agsee fii tey nag dafa am lu ko jiitu mooy ay waxtaan ak ay réunion yoo xam ne euh, sëñ Ahmed Diaw bi nga xam ne moo jiitee sët moo ci am ay xalaat yu am solo ak ay taxawaay yu am solo yoo xam ne da koo séddoo ak ñëpp ànd ko ñëpp ba tax ñu wax ni kat dëgg la li ñuy def am na solo lool waaye lu toll ni ñaanal alxaaji sëriñ bi sa safoor lu toll ni fàttaliku alxaaji sëriñ bi sa safoor kooku kenn waru koo xumtoo ñëpp war nañ ko mën a yëg bi ñu waxtaanee ci loolu ñu ne ah waaw lu mel noonu kat lu baax kenn du ko nëbbu kenn rawatina bis bu mel ni bisu alxaaji sëriñ bu Safoor kon nag war nañ koo gën a yaatal ci mbokk yi yaatal ko ci taalibe yi yaale yaatal ko ci dëkkandoo yi yaatal ko ci xarit yi loolu mooy sababu fii ñu àgg tey te ku nekk xam na ni am na fuñ àgg am na jéego buñ taxaw tey tey ñaan yàlla mu jëm ca kanam jéego boobu li ko waral mooy ay waxtaan yu am solo yi ma leen wax léegi ndax ku nekk xam na ni boo nekkee ci dara fas nga ñaan nga yàlla mu jëm ca kanam te mboolem bis yi ñuy taxawal ci dëkk bi ku nekk kañuy taxawal bis ña koy taxawal bis dañuy am ci moom cofeel am lu mu leen defal luñ ko mënta fay ñu jël bis boo xam ni dañ koy dagale mbokk yi daje dëkkandoo yi daje xar yi dañuy jàng fa kaamin jàng fa alxuraan ñaanal ko ñun nag suñu diggante ak alxaaji sëriñ noonu la demee ci suñu diggante defal nañu luñ ko mënta fay dimbali nañu tey jàppale nañu tey dañ koy sagoo te di ko tiitaroo ndax ak mbokk yàlla sunu boroom moo koy tànnal ku nekk ku nekk mën ngaa juddu diw sa baay diw sa yaay diw di sa maam doo ci mën dara waaye bu la yàlla tànnalee ay maam yu baax ay cosaan yu am solo yu dëgër yoo xam kenn mun leen a xewet ci lenn ci diine ki defaru mbokk ci jàng ki baax ci jub kooku ku am maam ju mel noonu da ko sagoo da ko wane da ko sant yàlla moo tax bis yu mel nii mu am solo torop di ko fësal di ko di ko gën a wane ndax lim ñu mën a jariñ ñun ñu koy def ak ñeneen ñu mel ni loolu buñ demee ba ca kanam dañ ci gën a xam dara kon mel na ni sët yi am nañ taxawaay yuñ def yoo xam ni dañ ko tàmmalee rek te fas nañ yéene incha allahu taala bu déwénee buñ ki tolloo dana weesu fii ay junni yoon fas nañ yéene mu weesu fii ndax alaaj sëriñ naqariwuta wooteel naqariwuta xamle naqariwuta liggante ay mbiram ndax moom léppam dafa baax koo xam sa lépp dafa baax te sa lépp nga teg ko ci yoon naqariwoo wooteel naqariwoo dagaleel nit ñi kon bu ñu jógee ngir wooteel alaaji sëriñ ku ñu ko wax ne la alaaji sëriñ la defal bis yeex ngeen koo def rek la ñuy wax waaye kenn du ci am looy sikk sàkk ndax maqaama ak taxawaay bi nga xam ni nit ñu baax ñu nekk ci Touba am nañu ko maqaama moom mu la am te da koo liggéey da koo liggéey da koo liggéey digganteem ak sëriñ Touba jaare ko ci Serigne Fallou Serigne Fallou jéppiwu ko sëriñ Fallou musta xool ci moom benn yoon lu ko naqari sëñ Serigne Fallou gërëm na ko sëñ Abdoul Ahad gërëm na ko sëñ Abdou Khadir gërëm na ko mbooleem njaboot ak Serigne Touba gi ñëpp gërëm nañ ko firnde gërëmam ci Serigne Touba nag mooy ak nekkam ci àdduna ndax nekk na fii ca nam fi war a nekk te it kum dimbali rek ngay xam waaye ku ko dimbali mosoo koo dégg koo dégg mun a jëflante nag alaaj Serigne lan ma defal lay wax waaye la ma defal alaaj Serigne doo ko dégg mukk moo ma defal lii moo ma waxal lii moo ma jàppale ci lii waaye maa defal lii alaaj Serigne doo dégg mukk kon nag ku am ku noonu war nga koo wane war nga koo sagoo war nga koo liggantil bis bu ñëpp bokk ba ñëpp xam ne alaaji sëriñ mii ma nga ca gaaya te ca bokk kon nag alhamdulilahi rabbil alamin sët yi nag ñi ngi sant mbooleem njabootu alaaji sëriñ bu sa gépp ndax mbir mu nekk kala ca boole war nga ko sant kon waajur yi ak baay ak nijaay maa ngi wax ci kàddu si kër yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal ndax euh, buñ demee ba toll fii ci alaaji sëriñ bu ngeen sësoon ci alaaji sëriñ ba noppi yàq dara yàq dara yàqu rek ñoom duñ mën a sos waaye yéen doom yi yéen a lijjanti mbiru alaaji sëriñ teg ko ci yoon wax nañ ni gataay bi mu mujj woote fii ci kër gi mooy na na njaboot gi ànd doon benn la wax kon nag bisu tey bii loolu mooy ñaanuk alaaji sëriñ bi sa safoor mooy yéeneem mooy njaboot gi doon benn kon njaboot gi doon nañ benn seeni doon doon nañ benn seeni sët doon nañ benn ñëpp bennoo nañ ngir yëkkati jëmmi alaaji sëriñ bu sa safoor fàtte seen bopp kon lam bëggoon yàlla defal na ko yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla nañu ko yàlla fayal sët ci teewaayu mbooleem kilifa yi ñi ngi sant ñëpp ñi fi xëy si suba ba ngoon njabootu Serigne Touba gépp bàyyiwuñ kenn ñi ngi sant it dëkkandoo yi ndax génn nañ seeni kër aal leen jox leen mbooleem dëkkandoo yi rek ki turu sa di turu Serigne Ahmed Diaw ñu ngi leen di sant bu baax a baax. di leen gërëm di sant ñëpp bàyyiwuñ kenn jàngkati xasida yi ñu ngi leen sant di sant it kuréel ñi nga xam ne ñoo ñoo nekkoon ci baas bi. ak mbooleem ku leen jàppale ak ku leen wuy rek ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm ñu ngi sant it Serigne Lamine Bousso ak mbooleem ñëbaru El Hadj Serigne Bousso gépp te di leen ñaanal di sant mbooleem koo xam ne dugal nga sa sa yitte wala sa ñaq walla nga dugal ci sa kàddu ci mbirum El Hadj Serigne Serigne ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm bàyyiwuñ kenn ñi ngi ñaanal ñëpp ñi ngi sant ñépp suñu xol sedd na guy gërëm nañ bu baax a baax bàyyiwuñ kenn. ndax bis bii rek lañu am te amuñ li ko gën a rëy te fas nañ yéene bu ñuy tudd màggal ak Touba bu ñu noppee boole ko ci bis yi ñuy tudd loolu pas-pas moo koy def ak yitte ju kawe te yitte yi kawe na pas-pas yi mate na ko fas nañ yéene daal fu ñuy tuddee tuddati màggal ci Touba gii ni màggal ko ak sëriñ loolu taxawaay yi ñu ci war a am daayira bi daañu ci gën a waxtaan daañu ci gën a taxaw daañu ci gën a farlu ndax pas-pas bi mi ngi fi. fulla ji mi ngi fi yittewoo gi mi ngi fi te kiñ koy defal ku ko mat a defal la kon fas nañ yéene incha allah taala ñëpp maase xam ne bis bii bis la boo xam duñ ko weccoog dara te daañ ko fonk daañ ko yëkkati daañ ko daañ ko yitteel lépp luñ ci man danañ ko def ba def ci luñ ci mënut incha allah ñu ngi sàkku ñaan ci sëriñ Lamine ak mboolem njabootu ala sëriñ bi fuñ ci bëgg a àgg rek ñu mën faa yegg wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.